muhammadu abdul karimi samba jaara mbay yam damu biya cheikhul karim cheikhu ahmadul mbakiyu nafaana lahu bi barakaati jug leen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen daal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba jug leen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen daal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba jug leen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen daal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba bu leen ma tànqal وأما نيران الدلالة والإغواء فأنت الذي خذت المفاخر كلها وما تركت عليها من دعوى bagage ñu ci kanam ñu bagage ñu فلم تمد بربهم فكلمتهم ñu def tànk وأعينهم عمرا وأمهم شكلا أتيت لأهل الدين بالسؤل والمنى وبالعسر في الدنيا وبالفوز في العقبى جزاك إله العزيز خير جزائه وأعطاك ما تهوى جميعا إلى الانتهاء جزاك إله العزيز خير جزائه وأعطاك ما تهوى جميعا إلى الانتهاء صارت بقلبي دون الجسم أسماء وقلبتني في قهر صارت بقلبي طول الجسم أسماء وحلفتني بقفر ما به ماء وما سفرت بوجه أتيه ولا يأتي الولي ليلة في الجهل ليلاء أكرم بها طيبة لو أن هذا حد لدامج بوسال فيه إرواء جيدا غيدا قد واقت محاسن و بسم الله بسم الله بسم الله رحمة الله يا نعيم الجنان أنت حبي وأنت نور الجنان قرة العين يا بشارة قلبي أنت طيب الفادي يا ريهاني أنت بعدي وأنت نسبي وجلي أنت كلي في سر والإحلان يا طبيب الأدواء أنت طبيبي بك أرجود كل زمان يا سرور الخلود أنت سروري بك هي بذكر كل مكان يا حياة الإحياء أنت حياتي أنت روحي في نفسي والجثمان أنت سري وسر سري فالدم لي في حياتي إلى دخول الجنان يا خديم الرسول حبك ديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم الرسول حبك ديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم النبي السلام عليكم وتحيات الله بالرضوان مرحبا مرحبا نالا وشالا بكم وعبد كل حرف القرآن alhamdulillahi ki may xamal bu wér te di ma may xéewal ci barkeb ki mu xëy jébbal lu dooni xéewalam yéen gaa yi diine jege leen ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu wér te jafe leen ma fekki tey ay fas-fasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lu ku xam day dolli xam te lii ma leen di bëgg a wax day daggi xol dëggali wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fii ak fanu jëm masuma leen a waxi neen te lii ma wax du waxi neen lii wayu xutbu la du neen yu dee foy ñu dul kemam am sa bajaare nee naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat mu di ma may di fay ay di dàqi mooy ci leeri booti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma wattul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ki ndigalam di ma yërëm di ma tefal di ma jariñ di teral def mama ma ku ñu fal ku tabi be yi di dima dugal fu may musal di fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam di setal ci waxi bañ bu kuma ma jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suñu daan te fetalam dima xëccël dima di dima jañal di tayal dima tayil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 di ma félal lu may sanal mu teggi tegginu njëm daf may toggal di ma yàkkal di ma ràccal di ma sefal di ma tibbal di ma leel ci bi ñu barkeelu bonam daf may bëkkal di ma seral di ma xàccal di ma dalal di ma fayul di ma moyul kenn du ma yab fi kanamam bu ma yeewee kenn du ma yab fu ma fi jëm du ma ayib sama gannaaw sama ayib xanaa nameel guñ ma nam sama ñoñit duñu ayib man a ki ñoom duñu layib sëriñ bi moo dajale yépp beral nu cër bu nu gërëm li ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ko wax ma di ko xam li ma wan ma di ko gis moo ko wan ma di ko gis te ko gis ne ko gis ne ko xam ne ko am may na ma lool danaa ko wax may na ma lool duma ko wax na ma lool man mu ko wax ak ba ko ñooni keefiyam man Samba Jaara ma gërëm sama sëriñ danaa xorom way wi ma way ci waa këram ñoom ngërëm ñoom xorom bu seeg seggee ba ñu wéral li tax lu jug di ko béral werante deñ kon nag yëral seeni jaloore ca kanam jës bul xulu bi dafa jib bii jës bu jub xeeñ fa mu jub lu ko ko xeeñ na wu te jub wee na xameeful fu mu jëm jës bul xuloo bi dafa daw bii jës bu jub xeeñ fa mu waw te ku ko dab na dawa daw raw na xameeful fu mu yem lu jiitu lii dafa dawal ña daa rawante ka dawal naka fëxal raw ba àggal akam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug tofal ko bii jës bu di way kaway na bii di ko ko fay na way na bii ma di ko way ba fanu jëm kemub li ñuy dox di ko way fayante la ak moom kamu way da ko gërëm ba di ko way làmmiñ yi dal di ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo ka di ko roy ñu way ba daane ku ko way ak ku wël ñu ne wedam lu ma wax ak lu ma waxul wuute ga fes na nëbbuwul tey ba fi tey dana fesal doya xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gën a xam ku bëgg a gis te bëgg a xam na diglu xippi ay bëtam kenn du werante lii ma wax way xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sa ma wax moo tax ma saf ko ci xolam bu leen ma yem yem leen ko ndax du man di wax mooy ka di wax waxande laa um te di wax fu ma tijjee may la miñam yu day feeñu takum feeñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xami seere dal di gëm bu fekkee moo feeñu ci man bañ naa ma yow booba du man moom ki di moom moo fi di man ma di fi moom muy ki fi xam moo tax ma wax ku déglu lii naxa ni lii ñuy waxtu lii waaraate jowuma ci lii sëriñ bi may na ma boppam kaawtee fu yonnen la gu des te ak wéyam dara du des lu doon karaama yu fi des dana ko yóbbaale ñu dem sëriñ bi moojizaat la moom man nag karaama laa ci moom ku weddi lii na dem fa moom laaj ko mu teqeet lem la jëm moo tax li may wax moo ko moom musuma ko jaawale moom tudd turam doy na ma koom tamoy seral sama yaram borom tu ba bi turam may na ma xel du turam may na ma xol sarab turam may na ma lol duma ko wax xola ko xam nga kay ci suñu dëkk bi dégg nañu jéem. ñu béy ci arabe yi ñu jiital moom la daan nuyoo Sëriñ Tuubaa. kay masaana jub ci jaay dem. waaw waaw tubaab kay nag dégg nañ ko bu baax. dañ ne lu way lool. dañoo amoon nag sëñ Amsatu Mbàkke sëñ suñu bu ko siyaare bi. laaj ma nu ngeen demee laaj ma xam nga fa am amoon. man damaa bëggoon ba liggéeyal sëñ Tuubaa ci waaye nii waaxal ko xalifaam sëñ Moustapha Mbaye wax ma ndigal loolu parce que ma wéy jur yi ma ne woon su ma fi accès dinaa ko sàkkuwaat ci yow sàkku ci ñaan ngir ñoo ni binduluwaat waaye nii parce que ñu ko amal maktab bu ñu ko bëgg a defal dajale woon bi mu laaj ko mu bari lool ngir ñu ko bëgg kilifa yi mooy woo sëñ Abdou di ko yëkkati te duñ ko mën a gis sax ak sëñ Moussa Sali duñ ko sax mën a gis mu am yéen i liggéey sëñ Tuba sotti ko yaatal ko bu baax a baax a baax loolu nag ndaxte ñoo ngi ci sàkk di sàkk ñaan ada perempuan tuh siapa mau minum besi terus di perempuan nah itu jalan net konpon itu dari kawasan gue pada kaki sari dulu gue lalu ada tak ada nasihat sampai jarang nah amnan tiga dari apa ada itu nama pada batu bicin dulu sama bang di dari rasanya rasanya itu yang mau ini organ sahrim lalu kalau dari bang bang jërëjëf Mbacke sant bu baax. sant na bu baax a baax. yéen ñi nga xam ne loolu yéen lañ ko mën a fàttali fàttali ko yéen lañ ko mën a gën a dimbali ko gën ko gën koo mën a jëriñoo ngeen sant yéen bu baax ci taxawaay bi noonu nga wax dégg nañ ko bu baax am ngeen ci diggante gën ngeen ci am diggante dinañ leen gën dinañ ci gën a ànd ak yéen incha allah waaw noonu noonu ngi am mbégte lool ngi am mbégte lool sant yàlla bu baax a baax baax baax am benn liggéey bu xam ne kawe na liggéey boobu waaw sëriñ bi moom xam ne sëriñ bi moom dara lenn xam-xam bu ko lay bu ko bëgg a jiitu te mu jiitu xam-xam yëpp. ndax xam sañ bi mooy xam mooy mooy xam yàlla rek. mooy xam li yàlla bëgg. kon nag yi. léegi yi ngeen ñëw jox fii. parce que bi yitte yi jotaay bi. sant yàlla bu baax ñu ngi sant leen gërëm di ñaanal bu baax. tawfiq sëñ bi ak ak ngàttaloom ak ngërëmam. amiin. <laughs>

وسهبي وخدمي وسلم تسليما هذه القصيدة الحجمية خرها محمد عبد الكريم سامبجا رمي يمدو بها شيخ الكريم شيخ أحمد بكي نفعنا له بركاتي جغلا تخو ذكر لي ما يوخ توبا ngeen dal di xamne borom tuba moy borom tuuba jugla taxaw deglu li may wax borom tuba ngeen dal di xamne borom tuuba moy borom tuba jugla taxaw deglu li may wax borom tuuba ngeen dal di xamne borom tuuba mooy borom Tuuba bu leen ma tànqal ni ngeen celal ku jóg na ni cel te bañ ci tànqam lu ngeen xam tey borom Tuuba te lii ma di yëgal lu bët gisoon la bawoon mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Tuuba te lii bu dee jib ba diggoog xol ya sa ngeen biral ne kata neefoon borom Touba ci ko sëriñ si ñu gis ak ko sëriñ si ñu xam te no fi jébbalu xey jital borom Touba jébbal ko jàkka sa ko ju taxaw fa ganawam dëkke si kartana barke borom Touba te booba ñoo yay ku gis xutbub jamono bi am fi yow kali jiite leen borom Tuuba buur yàlla moo ko fi jiital tey ci kaw lu dul seeteet wane na rek lépp ci tawfeex Sëñ Tuubaa ci la bokk. wallaahi ndax Sëñ Tuubaa Sëñ Moussa day wax ne. tawfeex Sëñ Tuubaa képp ku daje ak moom. moom ñett yi dafay daal. sa lépp day yéwén sa lépp day barkeel sa lépp day kawe. lépp ci tawfeex Sëñ Tuubaa la bokk. ci loolu mën a nekk daal. fas yéene ko ànd ak yow rek incha allah. loolu rek la ñu. waaw jiite way liggéey jëm Tuuba diggante xarnook moroomam xut moo ko di yor buy beneen wuutu laaj leen li borom Tuuba diggante xarnook moroomam xut bu moo ko di yor buy beneen wuutu laaj leen li borom Tuuba yii xut bu wéy na yeneen it wéy ki ñu gis mu yor jamono ji tey leeral borom Tuuba mu jël ko tabbal ci biir soodaan te booba sa tub la waa nde njubug soodaan borom tuuba mu daal di wax ne ku ni jébbali mbir na di moom bur yàlla moo ko fi xalal ngir mu jëm tuuba mu daal di wax ne ku nuy jébbali mbir na di moom buur yàlla moo ko fi xalal ngir mi jëm tuuba mu daal di wax ne ku ñuy jébbali mbir na di buur yàlla moo ko fi xalal ngir mi jëm Tuuba muy ngir mu jub mu ne xoj sikul dëngul ko caaw daa goo ko ba dem àndeeg borom Tuuba daa goo ko ba dem àndeeg borom Tuuba naa dellu nag jëm ci wax firndey rawam gi mu raw ba jiite gaaña ñu naa askay borom Tuuba buur yàlla séddale na ñi xutbu jamono jamonaam ñuy rawante ba moo meeluk borom tuuba mu xëy ko fal mu tëral saayir mbu boo baatin tuba yu moom daaru moom tuuba tëral jaari bakkan booleeg jaari fatal tasaare noon ne ñu daw ëskay borom tuuba tëral jaari bakkan booleeg jaari fatal tasaare noon ñu daw est-ce que borom Touba ndax moom fetal na ba dàqub sox jibut dalul xeej jaasi bocc ko wut